seen émission guddi aljuma di am alxames bu nekk ci seen rajo Baol Média FM 88.5 nekk ci Touba Mbacké tablo bi xàlluwa dëgmal dëkk bu sell ba ak seen mbokk seen xarit ndongali Moustapha Thiam alxames le 2 mai 2024 ñu fas yéene dalal seen mbokk Serigne Tamsir Gueye Serigne Tamsir Gueye di borom xam-xam ñu fas yéene waxtaanee jàng ak jàngale ak mbooleem xam-xam yi doomu aadama mën a yor ngir mën a jariñ boppam ak jariñ mbooleem askan wi mu nekkal 22h30 jàpp 0h ñu fas yéene dalal kii di Serigne Tamsir Gueye di borom xam-xam ci jëm ci jàng ak jàngale. incha allahu rabbi ku ñu bëgg a topp ci jataay bi mën ngaa def 88 628 19 05 88 628 19 05 mbaa nga def 88 628 81 08. mën ngeen ñoo topp ci mbooleem plateforme yi ngeen mën a jaar ngeen mën a déglu wala ngeen seetaan seen rajo télévision Baol Média FM YouTube wala Facebook alxames bi ak Serigne Tamsir Gueye bokk ci Hadayaqul Fadahil ala